الماء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 zawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa M Media Group Nour Daarayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nungul suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc te may ñu weer wi ñu dugg weeru sel wii yàlla may ñu fekk gi ak tal gi ak wér gi ak gën ñoo xiir ci jaamu yàlla ci def lépp lum ñuy digal waaye tamit bàyyi lépp lum ñuy tere nuyoo boobu ak ziar boobu nag ñu di ko jël di ko teg ci loxool suñu kilifa gi suñu sëriñ bi a Cheikh Abdul Ahad moom mi kilifa ak jotaay bi kilifa ak liggéey bu sell bii di ko ziyaar bu baax di ko ndokkeel di ko ñaana yàlla subhanahu wa taala na ko yàlla gën a jàppale ba lépp lu mu bëgg liggéeyal lislaam rek loolu mu man ko am ca lu koy njortam te nu ànd ko ak moom bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu nag moom buñ ko ko doxee rek jox ko kilifa gi mooy danoo bëgg rek képp koo xam ne kii yaa ngi ci groupe bi moo xam góor nga wala jigéen mag wala ndaw rek ñépp rek ñu yëg ci seen xol ne nuyoo boobu daal niw nañ leen ko siyaare nañ leen ko ndokkeel nañ leen ko bal nañ leen ko àq kon Mbàkke nga jot lu ñu néew mbooleem mbokk yi nu bokkal liggéey bu sell bi rek te nga dolli ñoo ñaanal rek liggéey bi daal yal na nu yàlla dimbali ba lépp loo xam ne lu koy dëgëral la luy tax mu gën a jëm kanam la luy tax mu gën a yaatu la rek loola yàlla jàppanal nu ko di jëy seyna muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon ginnaaw nuyoo bi ak ziar bi rek dañuy jéem a tàbbi ci liggéey bi te mooy fatwa bi ci eh, laaj yu am solo yi nga xam ne yi mbokk yi dañ ko fi rotal te lu ci jéem a góorgóorlu daal di ci jéem a def ay gëstu ak di ci nam nabi ba di ci jéem daal di ci tontu tontu yoo xam ne yi yal na nu yàlla dolli jàppale ba muy méngoog na xam ne lii moom la war a doon kon tey laaj biñ fi jëkk am rek mu ngi jóge ci sëriñ Badanjaay Makka te nekk fa fale Italie sama goro Badanjaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ndokkeel di ko ziyaare eh, moom dafay laaj wallu ki nga xam ne kii day tukki te xañ na avion la dugg moom ak julleem dëgg-dëgg nan la war a demee bu ko defee ki nga xam ne kii eh, day tukki di am lu muy war moo xam oto la wala avion la walla gaal lay jog maanaam day jaar ci am ndox kooku day am yu ñu koy may waaye tamit day aaju ñoo xam ne julli moom dafa am ay waxtu yoo xam ne yii moom lañ ko tànnal nga xam ne julli bu nekk am ñaari waxtu yoo xam ne yii benn bi muxtaar lañ ko tudde mooy waxtu wu jëkk wi waaye beneen bi ci des dañ ko wax daru yi mooy ñaareelu waxtoom nga xam ne julli gu mën a doon soo ko jullee ci waxtu wu jëkk woo muy muxtaar mooy gën mooy ëpp yool ci boo ko jullee ca daru ba muy wax waxtu woowu mujj woon moom nag kon day laaj ndax euh, nit ki bu dee tukki rek te na man dugg ci avion bi ndax mën naa daal di julli julli yi nga xam ne yi rek moom la war a jullee su ko defee dañ ko naan euh, bu fekkee ni waxtu ya jotagut moom nga xam ne des na lu baree bari maanaam day dugg ci loolu muy tukkee rek dem ba xañ na bu fekkee ni yàlla dogal na mu wàcc ci foo xam ne fii waxtu julli jot na euh, mu wàcc julli su fekkee ne nag am na ngantal maanaam moom nekk na ci warukaayam googu ba julli jot te xañ na loole mu war doonu loo xam ne lu ñu taxawal la ngir di julleg yooyu su boobaa it day bàyyi ba wàcc rek su ko defee mu daal di mën a julli waxtoom yooyu nga xam ni da ko fekk ci warukaayam googu waaye julli googu yi tamit mu dëjal laajaale ndax da koy julli jullik wàññi wala lu mu koy def waaw julli wàññi julli moom dañ koy may tukkikat bi nga xam ne bii dafa am ay chart maanaam ki nga xam ne kii dañ ko naan boo dee julli man ay eh, boo dee tukki man nga wàññi julli maanaam la ci jëkk mooy diggante fi mu jógee di tukki ak fam jëm ah, na mat eh, am na ñoo xam ne dañ ne na mat juróom-ñaar fukki kilomètre ak ak ñaar am ñu ne na nekk juróom-ñett fukki kilomètre ak ñaar loolu bokk na ci sarti nga mën a wàññi sax julli waa ñaareel bay dañ ne foofu ngay dem di fa tukki noonu yi soo bëggee wàññi sa julli maanaam doo am yéeney am fa lu ëpp ñeenti fan saa boo yéenee am lu ëpp ñeenti rek dootu la may nga wàññi sa julli ko ko te yaakaar ne kiy tukki jóge fii dem ci réew ya euh, war faa nekk ci liggéey yaakaar naa dina fa sax euh, jamono joo xam ne ji dina ëpp ñeenti fan yooyu nga xam ni moom lañ koy may ngir mu mën a wàññi kon daal da ci tënk foofu nit ki bala mi mën a wàññi jullim daal euh, day fekk ne foofu mu jëm noonu daal maanaam euh, bu fay dem lii yéene mooy fasu fa yéene am lu ëpp ñeenti fan bu fa doon fekk soxnaam sax itam bu dut mat ñeenti fan itam maanaam dootul sañ a wàññi julli yooyu nga xam ni moom lañ koy wàññiloo ci kii tukki ak yeneen sart yi nga xam ni moo ca bokk kon kiy tukki noonu may nañ ko dañ naan fa loxo jamu taqdimin aw jamu taaxirin maanaam kiy tukki may nañ ko nag su su waxtu julli jotee maanaam mu boole ñaari julli yi nga xam ni maanaam ñoo bokk waxtu xam nga julli yi juróomi julli la su ko defee bu ñuy wax julli boo xam ne bii ñoo ñaari julli yu bokk waxtu mooy tisbar ak takkusaan ñoo bokk waxtu timis ak gee ñoo bokk waxtu ndaxte bu ci nekk bu sa muxtaar jeexee rek da ngay dugg ci sa muxtaaram moom moroom moroom ki ci topp maanaam julli gi ci topp bu muxtaaram moomee jeexee ngeen ko ne ci seen daruri ba ñoom ñaar ba kera waxtu woowa di jeex kon yow mi tukki su fekkee ni tisbaar ji dafa jot fekk yow loolu nga tukki yéegugoo ci dañ la maanaam may nañ la nga julli tisbaar euh, daa di julli tàkkusaan su la leeree ne maanaam bala nga wàcc loolu ngay tukkee maanaam waxtu tàkkusaanoo day dem ba jeex waaye tam may nañ la su fekkee ni tisbaar ji jot na tamu leer la ne maanaam balaa tàkkusaan a jeex balaa waxtu tàkkusaan a jeex nga mën a wàcc julli itam may nañ la nga yeexe ñaari julli yooyu maanaam bañ julli tisbaar soo wàccee daa di julli tisbaar ak tàkkusaan loolu daal moom may nañ la ko may nañ la bu tisbaar jotee eh, te leer la ne maanaam yow mii boo duggee si avion bi bala ngaa wàcc waxtu takku sano day dem ba jeex may na la léegi nga daal di julli tisbaar daal di cay teg takkusaan daal di doga yéeg waaye tam su la leere ne maanaam eh, waxtu wi eh, fi nga yéege si loolu ngay tukkee noonu muy avion bi wala leneen lu mën a doon leer na ne maanaam balaa waxtu takkusaan wa jeex boobu it ne nañ may na ne maanaam nga yeexe maanaam bañ a julli tisbaar yéeg daal di dugg soo demee ba wàcc nga xam ne waxtu takkusaan wi jeexagut nga daal di julli eh, tisbaar daal di koy booleeg takkusaan mu dee timis ak gee maanaam may nañ la ca loola bu dee timis ak gee la te leer la ne maanaam timis ji jot na te bala ngaa wàcc boo yéegee bala ngaa wàcc waxtu geewi day dem ba jeex ngay doog wàcc bu baax dañ la naan jullil timis boole ko ak gee waaye tam bu la leer ne maanaam fi ngay yéegee ba fi ngay wàcce waxtu geewi du fi jeex boobu itam may nañ la nga bañ a julli dugg ci fi ngay yéeg noonu ba wàccee fekk waxtu geewi jeexagut moom itam nga daal di julli gee ah julli timis daal di cay teg gee ñaar yooyu daal may nañ la ko waaye tukki gi tax nga wàññi sa rakkaay yu nga xam ne mooy ñeenti rakkaay yi bu ci na nga def ko ñaar moom dafa am ay charte yoo xam ne yii faaw nga mu nekk ca tukki ga nga doog a mën a wàññi sa julli boole ñaari julli yooyu nag may nañ ko ki nga xam ne kii tukkiwut bu ko neexee mën na koo def waaye itam may nañ ko ki nga xam ne kii day tukki ci ay ngant yoo xam ne su amee dañ ko koy may su ko defee bokk na ci liñ lay may nga mën a boole ñaari julli yoo nga xam ne dañoo bokk waxtu mooy boo feebaree feebar boo xam ne bii jamono ji ngay julli tisbaar euh, gàllankoor ak feebar boobu mën na laa dab ci diggante bi ba ba mën naa am tàkkusaan ja dalay raw ba may nañ la nga boole leen ñoom ñaar boo jullee tisbaar daal di julli tàkkusaan bu dee ni jamonoy taw la itam mu doon taw bu mittee mittee ànd ak lëndëm wala mu ànd ak fi ngay jaar yow yoon wi nga jaar day am ay rebe-rebe maanaam nga xam ne bu tooyee noonu sooy dox ci foofu noonu lu mel ni ban dafa nekk ci diggante bi bay mel ni day summi say dàll noonu su boobaa itam may nañ la nga boole ñaari waxtu yooyu kon bu ko defee euh, day bokk na ci liñ lay maye nga mën a boole ñaari waxtu itam moo xam da tukki wala tukki woo muy feebar wala diggante bi maanaam jamono jooju waxtu wi jotee muy tisbaar la ak tisbaar la wala timis la muy taw taw bu mitti boo xam ne bii dafa ànd ak lëndëm wala bi mu tawee taw boobu ànd ak fi ngay jaar am ay rebe rebe maanaam lu mel ni suufas ban soo xam ne si danga ciy dugg say tànk di dugg ci biir di nuur soo demee ca jullikaay ba muy jàkk ja daal may nañ leen ngeen boole fa ñaari julli yoo xam ni ñoo bokk waxtu kon daal xam naa ci tënk noonu rek loolu mooy lenn ci li nga xam ne lii kii tukki may nañ ko ngir loolu mu mën ko def surtout que itit euh, bu ngant yooyu amee loolu mën nañ ko ko may mu boole ñaari julli yooyu beneen laaj bi ci topp jëw jëwriñu liggéey moo ko laaj muy Modou Ngom ñing moom dafay laaj lu jëm ci wàllu gone bu juddoo bés bi nga xam ne bi maanaam moom lañu ko war a tuddal maanaam moom lañ ko war a rayal am tuddu maanaam ñu di ko wax ngénte mooy kayfiyatu xisaabil ayaam la lil aqiqati maanaam dañ ne doom bu juddoo maanaam nañ ko wutal aw tur maanaam nañ ko tudd rayal ko am tudd suñ ko amee ca bésu juróom juróom ñaareel ba su ko defee bésab juróom ñaareel boo bii lu jara jàngat la lu jara xoolaat la ci ni nga xam ne ni maanaam ni lañu war a takkee maanaam xool bésëb juróom-ñaar boobu nan la war a bebe su ko def dañ naa ittafaqa al fuqahaau yu annahu yusannu an takuna al aqiqatu fi l yawmi saabii baada isdiyaadil mawlud ñoom boroom xam-xam yépp yi jàngale fiqh d'accord nañ ci ne sunna la euh, nit ki maanaam liir bi bu juddoo ñu defal ko ngénte maanaam rayal ko am tudd ci bésu juróom-ñaareel bi ma jawaasi an tusbaha zabihatu xablal yomi sabii aw baadoho waaye tamit terewut nenañ loolu ñu rendi nag muy të lay doon tudduma ne ne bu leen neexam mën nañ ko rendee njëkk bésëb juróom-ñaareel ba waaye mën nañ ko rendi itam ginnaaw bu bésëb juróom-ñaareel ba jàllee nag waaye dane wal afdalu an takuna fil yomi sabia waaye rendi nag loolu ñuy rendi muy ma li gën na ne maanaam mooy ñu rendi ko ca bésab juróom-ñaareel ba su ko defee nag li ci des mooy bésab juróom-ñaareel boobu euh, nan lañ koy lijjantee loo tax mu ne waxaal yuxsabu yowmul wilaadati mina sabaati fii wajhaani ne ndax euh, bés bi nga xam ne bii moom la gone gi juddoo maanaam bés boobu ndax dañ koy limaale ci juróom-ñaari fan yi ne ne maanaam am ñaari gisin daje am maanaam boroom xam-xam yi dañ cee am ñaari gisin ahaduhuma yoxsabu wa yusbahu fi saadisi mimma baadoho benn xalaat bi nga xam ne bii moom a ci boroom xam-xam yi wax ci wàllu nu ñuy régler juróom-ñaareelu bés boobu ñenn ñi dañ ne dañuy jël bés bi nga xam ne bii moom la gone gi juddoo ñu tàmbalee di ci lim ba am juróom-ñaari fan su ko defee bu matee juróom-ñaari fan rek maanaam ñu daal di tuddal gone kooku daal koy rayal am xar masalan bu liir bi juddu woon alxames dañu naan alxames ajjuma samedi dimanche altine talaata àllarba bu boobaa ñoom maanaam lu ñu àgg ca alxames yi maanaam ca àllarba ja la yem muy juróom-ñaareelu fanam ñu daal di koy tudd ja bés ba ca bés boobu nga xam ne mooy juróom-ñaareelu fan ba waaye beneen gis-gis bi nga xam ne bii moom la boroom xam-xam yam mooy ñoom dañ ne laa yuxsabu fa yusbaxu fi saabii mimma baadoho wa huwa al mazhab al maliki yi ñeneen ñi dañ ne maanaam bés boo xam ne bii daal ci la liir bi juddoo moom da koy dindi maanaam doo ko ci limaale da nga koy bàyyi su ko defee soo noon tey la alxames la juddu da nga ciy bañ a limaale bés boo daan nga daal di ne ajjuma samedi dimanche altine talaata alarba gis nga alxames ji bu dellu see fekk limaale woo kan ñoom loolu lañ jàpp na noonu lañuy war a calculer juróom-ñaareelu fan ba tayit loolu mooy li nga xam ne lii ñi jëfandikoo ngërëm imam Malik maanaam noonu la ñuy ngénte moom noonu la ñuy tudde su ko defee fii ci senegal nag kon ñun neenu seetle ne maanaam noonu la ñuy ngéntee mooy loolu mu wax ne maanaam bés bu mu juddoo maanaam doo ko limale ca juróom-ñaareelu fan yaag ndax gis nga ñun fii booy xool bés boo xam ne bii dañ ne ca la liir ba judd rek maanaam bés boobu day dellu si su ko defee ñu dog ko ñu dog ko ngénte rayal ko am xaram tuddam loolu nag day dëppook loolu mu wax ne maanaam bu dee ni ci ngërëm imam Maalik la daal bis bi nga xam ne bi moom la juddu moo xam guddi la wala bëccëg da ngay bàyyi boobu rek maanaam bañ ko ci limaale su ko defee comme ni ma ko waxee bu juddu woon euh, alxames nga bàyyi alxames jooju daal di ne ajjuma samedi dimanche altine talaata àllarba gis nga alxames yi day dellu si mu doon juróom-ñaareel fanam fekk bële da nga koo limaale wutoon alxames ju jëkk ja waaye ñeneen nag da ko ciy limaale mooy bés bi mu dellu si woon ci ngay tàmbalee di lim waaye doo ci àggaat masalan bu ju doon alxames da nga naa alxames ajjuma samedi dimanche altine talaata àllarba doon tudd ak gone gi loolu nga defe naa fii moom dañ fi seetloogun ba ñuy commencé di xam ay wàllu tudd yooyu ba léegi moom maanaam lim boobu moom maanaam ñun gisuñu ñu koy jëfandikoo fii maanaam tàmbalee ca bis ba maanaam ba moomu juróom-ñaari fan nga xam ne doo àggaat ci bés bu dellu si ba nga doof mooy juróom-ñaareel fan bi boobaa day fekk ni nit ñuy tudde fii ci Sénégal di ko ngéntee ci li ñu gën a seetlu mooy daal kii ne moom dañuy bàyyi benn bés bés bi mu juddoo rek ko defee limaan juróom-ñaari fan ci topp kon daal loolu defe naa ne bu ñu defaatee ab gëstu bu baax a baax euh, leneen lu ci yeesit xam naa ñu mën a xam ne xam na ni la demee ne waaye loolu daal lañ ci gën a jàppagoon beneen laaj bi ci topp sëñ Fallou Gueye moo koy laaj suñu donga boobu bu baaxoon bu woon njàng mi loolu ko ndeysaan yàlla na yo defal ñu ko ñun ñëpp sëñ Fallou Gueye moom dafay laaj tëj xiisul mayit yi wa taxsiluhu wa takfinuhu wa salaatuhu moom suñu fàllu ge dafay laaj nan lañuy waajale koo xam ne kii dafa faatu nit ki bu faatoo maanaam nuñ koy waajale ci wàllu maanaam nan lañ koy sange ak nan lañ koy sànge ak nu koy julee ñu ne yoxusalu xuslal janaabati dégg nga am néew maanaam ab nit ab jullit bu faatoo maanaam bu ñu koy sang ni ñuy sangoo farata rek lañ koy sange loolay wax ne isa maatal muslimu saxiran aw kabiran wajaba xasluhu dana jullit dal saabu faatoo moo xam gone la moo xam mag la dañ ko war a sang waaye bokk na ci sang ba nañ nañ koy defee itam fa yoxsaru batnuhu bi refxin ne euh, suñu koy sang nañu bës biir ba bës nag bu ndànk boo xam ne bu ñeewantu lay doon boo xam ne bu ca dara nekkee loo xam ne lu waroon a génn la loola mën a génn fekk dañ koy teg ci bërëb bu yëkkatiku boo xam ne bii dinga ko mën a wëlbati nga xam ne ni nga ni ngay sangoo farata rek maanaam noona ngay sangee néew ba ne na nag wa yu lafu wa yu lif wa yalufu ala yadihi xirxatan wa yan wi raslaho ne ne ki nga xam ne kii day sang néew bi nag maanaam suy sang payma maanaam kanam nga masalan du koy sang bu koy raxas maanaam na laxas ci loxoom am morso ci jamono yim koy raxase summa yaxsilu farjahu wuma bihi min azan ne na léegi su laxasee morso nag ci loxo ba daal raxas bu laxasee am morso ci loxo moom mi koy sang daal raxasal ko kanamam googe muy peyma ak la nga xam lii nekk na ca moom ci sobe su ma yen zeol xirxata eh, wa yuwaddi'uhu wudu as-salaat su ko defee nee nag su ko raxasalee kanamam googu fekk daal raxasal loxo bee kam morso bu paree day dindi morso boobu làqar ci ko daal di koy jàppal jàppam comme kuy julli maanaam comme li ma xam ne comme ni nga sangoo farata rek xam nga booy sangu farata boo xubbe ko mooy sang li nga xam ne lii dafa taq sobe ci yaram bi da daal di jàpp jàppam benn benn noonu ngay defal néew bi summa yaxsilu saa ira jasadihi baadi am bi alaahu ila asfalihim nee su ko jàppalee ba pare daadi raxas yaram wi yépp maanaam tàmbalee ko ci kaw maanaam ci bopp bi ba ci suuf maanaam ci tànk yi nee na raxas googu nag mu koy sang maanaam sopp dañu mu def ko ñetti yoon maanaam salasan wa in lam yaxsulin naqa xasalahu xamsan nee na nag boo ko raxasee boo ko sangee ñetti yoon te gis na yaram wi kat ba léegi tam des na loo xam ne lii maanaam dafa setut maanaam mën naa am daam luy génn ci moom ak yooyu ne na ko raxas euh, maanaam na ko sang juróomi yoon kon dañ ne nang sopp nañu nga sang ko ñetti yoon soo ko sangee ñetti yoon yi nag te gis na yaram wi daal am na lu ci des ci wàllu ay taq-taq wala yooyu nga raxas ko maanaam nga sang ko juróomi yoon wa yajalu fil xasalaati al axirati saabunan wa naxwahu nen nag su loolu desee ci juróomeel bi yu mujj yooyu maanaam sang gu mujj yi nga ko mujj ki nga koy mujjee sang maanaam léegi nag da koy sange ak ab saabu wala loo xam ne lii lu deme ni ab saabu la bu dee ci wàllu lañ koy sànge la maanaam dañ koy laxas ci ay mm, yére maanaam càngaay ne ne wa yustahabu an yakuna al kafanu nazifan ne sopp nañu nag li ñu koy sànge bu nekk loo xam ni lu weex la te set te laab jadidan aw xadiman ne nag moo xam loolu bu dee ni lu weex la te set na te laab la te laab moo xam lu bees la bu dee lu bees baax na bu dee itam lu màgget la baax na waaye liñ koy sànge daal lañ ci taw na nekk yére na nekk lu weex te set bu dee yu bees baax na bu dee màgget la itam baax na li xaw rasuli sallallahu alayhi wa sallam albi ilbisu ilbasu min thiyabikum al bayaada fa innaha min xayri thiyabikum wa kaffinu fiha mawtaakum nee na li tax ñu taamu ci ñu sànge ko lu weex seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dane na ngeen di sol ci seen yére ya nga xam ne yi moo ca weex maanaam daal seen ak col daal na ngeen fexey yére yu weex ëpp ca ci li ngeen di sol ndaxte ne ne yére yu weex daal lu ngeen mën a am ci ay yére rek beneen couleur bu mën doon doon maanaam yére yu weex ya moo ca gën te ne yére yu weex yooyu itam su su ngeen amee am néew maanaam su ngeen amee seen mbokk mu faatu maanaam na ngeen ko sànge yére yu weex su ko defee wa yakunu salaasa lafaa ifa li rajuli wa xams lil marati ne nag loolu ñuy sànge néew bi bu dee góor la dañu koy def ñetti morso daal di ko koy laxas te yaram wa waaye bu dee jigéen la itam dañ koy def juróomi e, morso kon daal bu dee ci wàllu càngaay bi la daal dañoo bëgg mu doon lu weex te set te moo xam ne loolu lu weex loolu lu bee lu bees la wala dafa màgget ndax yonente bi dafa bëggan yére yu weex lool ba doon digle ne na ngeen di sol ci seen yére la ca weex te su seen su ngeen amee am néew maanaam ngeen sànge ko ko wàllu càngaay ko dañ ne bu dee góor la nañ ko def ñetti morso mu dee jigéen ñu def ko e juróomi morso waaye dañuy bañ nag maanaam lu mel ni sooy maanaam yére bu foor lool daal bu cher lool maanaam ñu di ko wut di ko sànge ab néew dañoo bëgg daal mu doon yére bu yemamaay boo xam ne bii dafay mel ni perkaal bi nga xam ne bii moom lañu moom la ñuy daal mooy ba ca gën maanaam mu bañ a doon boo xam ne bii daal njëgg day cher lool moom façon yére boobu ñu koy sànge la ca toppaat ci laajam boobu ba tey mooy nan lañ koy jullee dañ ne nag wa salaatul janaazati fardu kifaayatin jullit néew moom farata joo xam ne ji euh, jullit yépp la doon farata ci ñoom fardu kifaaya mooy loo xam ne li yàlla da ko farataal ci jullit yépp nga xam ne du doon sox loo xam ne lu ñuy mën a def defandoo ñoom ñépp lañu waaye su ko yenn jullit ya defee yóbbaale ñeneen jullit ñoo ca des waaye su ko benn jullit deful nag jullit yépp daal di maase am bàkkaar loolu la ñuy wax fardu kifaaya kon jullim néew day bokk ci la nga xam ne lii dafa war jullit ñëpp waaye ñenn ñi dañ koy gàddul ña ca des ndax mënuñu di ko def ñoom ñëpp su ko defee su ko ñenn ñi defee rek yóbbaale ci ñeneen ñu bokk yool ba yépp waaye suñ ko bàyyi ñoom ñëpp muy muy julliti bañ koo defit dañ cay amee bàkkaar su ko defee jullit néew dafa am ay ponk arkaanuhu arbaatun ponki jullim néew ñeent la maanaam faratay man nañ ko wax mooy anniyatu wa arbau takbiratin wa duaau baynahunna wa salaam ponk jullim néew mooy yéene maanaam nga yéene jullee néew ba waaye tam def ñeenti kàbbar muy ñeenti allahu akbar te ñeenti allahu akbar boobu saa boo waxee allahu akbar nga doxo nga teg ca ak ñaan waaye tam su ñeenti kàbbar yi matee nga daal di sëlmal su ko defee loolu mooy ponk yi jullee ab néew su ko defee li muy laajaati ci euh, li nga xam na ni moom lañu war a ñaan ci diggante kàbbar yooyu ngir di ko ñaanal néew bi ba tey dafa doon ay ñaan yu gudd yoo xam ne yii dafa gudd lool waaye tam bu ñuy xool comme kenn ci fuqaha yi muy wastaxsana ibnu abi zeydin fi risalatihi an yaqula ibnu abi zeyd nga xam ne moo bind risaala dafay wax ne nii daal boo demee ci risaala danga nga fay gis maanam ne maanaam ñaan gi moo gën a gàtt gu ñu gàttal la gu ñu tënk la te mu am solo lool ci ñu mën koo ñaanal am néew mooy soo kàbbar bi nga ginnaaw bi nga yéenee nga kàbbar daa di wax ne alhamdulillahi amaata wa ahya walhamdulillahi allazi yuhyi almawta lahu alazamatu walqudratu walthanaa wa huwa ala wa ala ali muhammadin wa barik ala kama salayta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima fil alamina innaka xamidun majidun allahumma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika kaana yashhadu an laa ilaha illa anta waxdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta aalamu bihi allahumma in kaana muxsinan fa zid fi ixsaanihi wa in kaana musian fa tajaawaz an sayiaatihi allahumma laa taxrimna ajrahu wala taftinna baadahu ñaan googu daal mooy gi nga xam ne gi moom lañu tënk ci boo julleem néew saa boo kàbbaree ci ñetti kàbbar yu jëkk yooyu nga jàng ñaan googu foofu ko tàmbale woon muy alhamdulillahi lazi amaata wa ahya ba foofu ma ko daanale noonu nga waxoo ci ginnaaw kabar bu ne ci ñetti kabaru jëkk yi boo kabaree nag kabar bu mujj ba nga ñaanal mboolem néew yi ñaanal jullit ñépp ñi nekk barsax ak ñi faatoowul ñépp daal nga ñaan ci sa ñeenteelu kabar boobu bu ko defee nag Eh, ñaanal ñaan gu ma doon wax noonu nii soo demee ba ci allahumma innahu abduka noonu nga koy waxee arab moom loolu ñuy wax sarfu mooy day soppi ay waxam lu baree baree bari ndax bu dee arab bi la nii maanaam bu dee ni kenn ku góor ki ngay wax du bokk bu bu doon ni kenn ku jigéen ngay wax bu dee ñaar ñu góor la ngay wax du bokk ak bu doon ni ñaar ñu jigéen la bu dee mbooloo mu góor la lu bokk ak mbooloo mu jigéen bu doon ni góor ak jigéen la nag moom ñooy bokk bu ko defee fi mu ne loolu mën a wax naan allahumma innahu abduka ba mu jeex foofu ne bu doon jigéen dama naan allahumma innaha amatuka wamnatu abdika wamnatu amatika di ko topp noonu yu baree bari di ca soppeeku ba keneen muy jeex bu doon nit ñaar la foofu mu ne allahumma innahuma abdaaka wam na abdayka wam na amatayka bakira ñaan nga di jeex bu doon mbooloo mu góor la dangay wax ne allahumma innahum abiduka wa banu abidika wa banu imaika bakira ñaan googu di jeex la ak la ca war a soppeeku lépp bu doon ay jigéen lañu danga naan allahumma innahunna imaauka wa banaatu abidika wa banaatu imaika ba keneen muy jeex bu doon ñaar ñu góor la wala muy góor ak jigéen doon ñaar waxal ko fee ñoo koy bokk allahumma innahuma abdaaka wamna abdayka wamna amatayka kana yashhadani ila axirihi bu doon ni ñaar ñu jigéen la danga allahumma innahuma amataaka wam na nataa abdika wam na taa amatika ba keroog muy jeex kon gis nga loolu moom ku jàng arab wax dëgg yàlla moo mën a def sarfu boobu ba ñaan ko nga xam ne gi moom lañu ñaanal jullit bi bu faatoo bu dee góor la mu xam na mu koy soppee bu dee jigéen la bu dee ñaar la bu dee mbooloo mu góor la bu dee mbooloo mu jigéen moo jàngee nag xoratul ay ni muy téere sëriñ Shuayb bu boobu di nga si lii ma lay wax maanaam nii nga xam ne ni moom lay soppeekoo ci ku mu a doon ca nga xam ne kii moom lañuy ñuy jullee wala ñoom lañuy ñuy jullee. beneen laaj bi ci topp Papa Mor Ñang moo ko tàbbal ci liggéey bi ñu di ko seer bu baax a baax di ko ndokkeel ci bëggam lu baax ak yitte woo ko yàlla ko yàlla doole jàppale jàppale ñun ñëpp jaay seen Muhammad sallallahu alayhi wasallam jëmm ju baax nee na moom day laaj imaamatul mar'ati li nisaa maanaam jiiteeg jigéen daal xam naa moom la bëgg a laaj ci buñ koy tënk ndax ni mu ko waxee rek moom mooy bu fekkee ne ay jigéen kese dañoo doon mbooloo nii ba julli jot ndax genn jigéen ci ñoom da leen di jiite wala ku nekk da nga jiite sa moroom dañ ko naan laa tasixu imaamatul marati walaw li nisaa li anna min shurutil imaamati az-zukuratul muhaqqaqatu fa ida kunna na waxdahunna na furaada dañ ko naan jiite jigéen wérut donte ay jigéen ni ñoom ni moom la jiite jigéen bu jiitee moroomi jigéenam julli googu baaxut ndaxte na ne dafa bokk ci charte jiite kay jiite nekk góor ne ne su fekkee ni ay jigéen dong lañu doon mbooloo te ñoom dong nga fa nekk amuñu góor gu leen jiite maanaam kenn ku ci nekk ci ñoom da ngay bër sa julleeg bopp nga julli ko loolu daal mooy li nga xam ne lii mooy loolu lañu ñu fuqaha jàngal jigéen daal maanaam ak jiiteem wérut bu dee góor la rawatina bu dee jigéen la sax maanaam bu leen jiitee jiite ko du wér kon bu ñu doonee mbooloo ba waxtu wa nañu ku nekk dem julli sa jullik bopp yeneen laaj yi ci topp te moo ci des ci laaj yi ferot tey jii mu ngi jóge ci sëriñ Moodu Juuf jëwriñi alquranul karim ñu di ko ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal yàlla dool di ko defal tawfiq ci bëggam lu baax ak yittewoo diine ak liggéey bu sell bi ñu yàlla boole te li ci gën a am solo muy alxuraan ñu ni jàng ni mu koy saytoo ak ni mu ko yittewoo ak ni mu ko taxawoo daal rafetlu nañ ko Euh, ñoo ko ci ñaanal di ci bég bu baax a baax di ñaan rek euh, yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njortam ci wàllu liggéey bi te defal ñu ko ñun ñëpp bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa moom laajam bu njëkk dafay laaj man wulida euh, mustahilan ay saarixan aw baakiyan suma maata fil xiini hal yarisu day laaj ne waaw ab liir bu juddoo rek daldi jooy waaye bim jooy rek dañoo daldi gis ne moom dafa daldi faatu kooku ndax dina don waaw loolu lay laaj liir bi nga xam ne bii juddu na waaye bim juddoo jooy na waaye bim jooy tamit dafa daldi noppi ñu daldi di seetlu ne moom day faatu na waaw kooku dañ naan naam yarisu maanaam liir bu mel noonu maanaam day donn ndax ëndaale na bakkan maanaam jéem ëndaale na bakkan ci àdduna rek te lay tegtale ne ëndaale na bakkan mooy bi mu juddoo jooy na ba ñu dégg ko ëndaale na bakkan kon boobu day bokk ci ñi nga xam ne ñi ñooy donn waajuram woowu nga xam ne bi moom euh, euh, mooy waajuram kooku day doon jéem jooy na rek ëndaale na bakkan te jëm indaale la bakkan rek maanaam bokk na ci miraas mi kon kooku daa war a donn beneen laajam bi ci toppaan mooy man tallaxa zawjatahu summa jaamaha athna al iddati summa xamalat hal hazal jimaaw kaana zinan am laa wa hal yunsabul waladu ila abihi ñaari laajam bi la koo xam ne kii dafa fase soxnaam waaye ci biir idda ji maanaam seen maanaam idda ji nga xam ne ji moom la soxna si war a iddawu ngir seen diggante tàqalikoo nee na ci diggante ba maanaam da cee moom maanaam sëy moom léegi bi moom ci kaw sëy boobu soxna si daal di ëmbat daal di ëmb ci ànd boobu ñu ànd muy laaj nag ndax euh, sëy boobu nga xam ne bii moom la sëy ak soxna si fekk na da ko fase waaye iddaam jeexagul ndax sëy boobu ak njaaloo lañ koy tudde ci sharia wala lu mu doon waaye tamit doom jooju nga xam ne ci sosu na ci ndax dinañ ko askanale bàyyam wala dañ koy tudde rek doomi njaaloo loolu lañ ko ci tontu mooy laysa hazal jimaau zinan li annahu waqaa xabla intihaa ila iddati wa haza ittifaqun baynahuma wa tasaaluxun dañ ko naan sëy boobu mu sëy soxnaam soosu su fase wan ci jamono jooju muy iddawu te iddaam jeexagut ne loolu du njaaloo ndaxte sëy boobu ñuy sëy ci biir idda ji la jeex te fekk idda ji jeexut suñu jubóowaatee ci seen biir ba mën a séq loolu kon buñ ko séqee du doon am njaaloo ndaxte loolu nag maanam ak déggoo la ak ñu jubawaat ci seen ñoom ñaar ba loolu mën a am ndax bu ñu jubawut maanaam bu ñu jubawutan maanaam loolu du mën a am seen diggante kon ànd boobu ñu àndaat ci biir it daje daal duñ ko jàppe ak njaaloo waaye dañuy jàpp ne maanaam kon déggoo déggoowaat nañu jubawaat nañu ba seen diggante dellu siwaat ndax diggante bu juboo rek dellu siwaat maanaam ci la loolu mën a amee te loolu tax alxuraanul karim di wax ne soxna si buñ ko fasee maanaam a toog ci néegam ba am ñetti fóot loolu la xam naa wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in wala yaxillu lahunna yaktumna ma xalaqa llahu fi ñi nga xam nañu dañ leen a fase buñ leen fase wax dëgg yàlla li ñu war a def mooy ku ñu fase mu toog fa jëkkëram joojee ñu nekk fa ñu doon nekk ba mu fóot ñetti yoon bu fekkee ni muñante nañu nag lu man ñetti yoon yoo xam ni soxna si fóot na ko euh, jotewuñu dara su boobaa ñu xam ne diggante ba jeex na waaye fekk idda ju jeexut kooku mën naa dem jëli soxnaam bu fekkee ni dem na comme ni ñu koy defee nii waaye itam jéem dafa demut walla jéem dem na itamit da am na nu ñu def daal ba ak juboo am na seen diggante ba ñu àndaat sëy su booba sëy boobu duñ ko jàppee njaaloo wal waladu yun sabu li abi doom ji tamit baayam rek maanaam kooku mooy nga xam ne moo doonoon sëriñam yaay ji mooy doon baayam maanaam moom lañ koy askanale waaye duñ ko doon duñ ko jàppee doomi njaaloo li ana laqda la mayoon taqda ndax pas-pas bi nga xam ne bii moom lañ fasan diggante bi ba sëy ba am mu fase ko te it daje jeexut mooy waral maanaam bu ñu àndaatee ci diggante bi du doon jaaloo te doom ja baayam lañ koy askane loo tax mu ne lizalika xakamati shariatu an tantaziral mutallaxatu thalathata quruin ne looloo tax sharia maanaam tegab àtte soxna soo xam ne si daal dañ koo fase bala muy meebu du dem maanaam na xaar ba am ñetti set maanaam ñetti fóot maanaam niñ ko mën a waxee ndax diggante boobu su fekkee ni jàmm dellu seen na fi mën nañoo jubuwaat kenn du yëg sax ne maanaam kii fase woon nañ ko te bu boobaa du ci yàq dara ci seen diggante beneen laajam bi ci topp te mooy laaj yu mujj ci fatwa bi tey moom sëñ Moodu dafay laaj ne xukmu man zana bimraatin wa xamalat fa baadara bi aqdi zawaajiha baada zuhuril xamli wa qabla intishaarihi fa ma xukmu hada zawaaji sëñ muru dafay laajal ne waaw koo xam ne kii dafa njaaloog benn jigéen léegi bi njaaloog jigéen jooju jigéen ji daal di ëmb bi jigéen ji ëmbee moom waa jooju mu daldi di gaawtu daal di <clears throat> lijjanti ñu may ko ko léegi ginnaaw bi mu xamee ne moom euh, ndaw si ëmb na daal dafa gaawtu daal di lijjanti ñu may ko ko fekk ëmb boobu moom gut waaye lijjanti na daal ba ñu may ko ko muy laaj waaw may googu nga xam ne gi moom lañ ko may soxna si lan mooy attega loolu lañ ko ci wax mooy haazal aqlu baatilun gayru saxiix ne googu takk baaxut te it takk googu nga xam ne bii moom la waaj takk ndaw soosu googu takk baaxut wérut li anna asna alxamli li anna zawaaj li anna aqda zawaaji asna alxamli xayru xayru wala saxiix tax ne jigéen daal bu ëmbee jamono jooju mu ëmbee suñ ko ca mayee maanaam may googu baaxut wérut charia euh, nugu ko kon kooku lim def euh, dafa def ñaari bàkkaar mooy def na bàkkaaram njaaloo waaye ba it wëlbatiku euh, takk soxna si ci takk goo xam ne gii du takk goo xam ne gii charia nugu na ko kon daal loolu mooy li nga xam ne lii moom lañ fi aman ci ay laaj yàlla yàlla doole defal tawféex bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin da yo da فتاوى سؤال وجواب يقوم بها الإمام أبو بكر فاي ndondal koddungoy bi awnillahi wa xosni tawfiixihi kulla yawmi ahadin fi M Media Group Nour